plan ORSEC ku ne xam na ni mooy organisation des secours bis bu réew mi demee ba toll ci jamono boo xamante ni ni service yi di doxee mënatul euh, indi tontu ci xat-xat wala xew-xew yu xam yoo xamante ni dafa dal ci kaw askan wi plan ORSEC boobu dañ koy dal di taxawal ngir gën a mën a organiser ni ñuy taxawee askan wi waaye loolu teewul président ci seetloom ak ci gis-gis gis ni département pikin département bu mag la am arrondissement yi nga xamante ni moo doon arrondissement des Niayes arrondissement Thiaroye ak arrondissement Pikine Dagoudane Kër Massar nag liñ ci seetlu naa ci loolu mu ni sante naa ministre de l'intérieur ak ministre des collectivité territoriales ngeen ànd ak gouverneur yi ngeen saytul ma mbir mi ba indil ma ay proposition yoo xamante ni buñ ci taxawee njort nañ ni population wu Kër Massar dinañ gën a seen mbir dina gën a yéwén ci seen doxalin waaye lépp lu jëm ci wàllu inondation yi tamit dinañ gën a ko mën a taxaw ci loolu 17 donc septembre 2020 président wax ni inondation yi kat ngir jëlee ko fi jox naa ndigal mu am benn programme d'urgence boo xamante ni dinañ ci tàbbal fukki milliards ak juróom loolu nekk ci benn programme bu rëy bu ñu tuddee programme de gestion des eaux pluviales beneen Euh, décision bu mag bi nga xamante ni jëloon na ko fi ma fàttali ko léegi mooy muy sant ñu euh, ci jamono boobu ñu liggéey ci xool nan lañ koy proposer euh, département Kër Massar nan la war a tëddee biñ ca jógee rek gouverneuru Dakar mu ngi toog fii ak préfet yi dal di tàmbali benn liggéey liggéey bi nag liggéeyu saytu la liggéeyu lacte la waaye liggéeyu gëstu la bu ànd ak ñi seen xam-xam mag yépp jëm ci wàllu nan lañuy ñuy gox ak goxaat ak réew ak lépp lu ci aju ba biñ ci noppee ci euh, weer yi génn ñu daldi ñu koy ñëw jébbal ñu def ci ay waxtaan yu bari nag waaye yamuñu ci waxtaan yi bi ñu jugee ci loolu code général des collectivités territoriales dafa digle santaane te loolu mënul ñàkk ñu dellu ci maire yi ci conseil départementaux yi su amee wala ci ville yi laaj leen lan la ñu xalaat ci li bi mu noppee nag ba ñu tënk lépp ci lañ ko jébbal président ak suñu ay proposition ci loolu nag ci la jëlee ay décret décret yi bi ci jiitu mooy Kër masaar nekk na léegi département le 28 mai bi weesu la ko euh, président signé département Kër Massar nag ni mu tëddee léegi mooy li ñu doon tuddee arrondissement des Niayes nga xam ni yëmbal nord la woon yëmbal sud Kër Massar ak Malika dañ ci dolli commune bu ñuy wax jaxaay parcelle ñàkku rab waaye du commune bi yëpp mooy dugg ci jaxaay parcelle euh, du commune bi yëpp mooy dugg ci département bi commune u jaxaay parcelle ñàkku rab boobu dañ ciy génne euh, ñàkku rab taqale ko ak Tiwaawan Pël génne ci Medina Cubb taqale ko ak Sangalkam waaye loolu du loo xamante ni décision la bu ñuy jël wala boo xamante ni dañ koy xalaat wala ñu proposer ko rek ci kaw euh, ba kenn wala ci kaw xalaat boo xamante ni teguwul ci xam-xam dañuy xool askan yi nga xamante ni war nañu mën a dajaloo wala ci wàllu économie ci wàllu koom seen euh, ànd mën na gën a yéwénal seen nekkin wala ci wàllu sax découpage administratif bu ñu ko defee sous préfecture yi ni ñuy taxawee ak préfecture yi dina gën a yéwénal doxalinu état ba lépp loo xamante ni yittewoo nañ ko dina gën a bar ci ni nga xamante ni solution yi noonu lañ koy apporter ci loolu département Kër Massar léegi ñetti arrondissement la arrondissement bi njëkk mooy arrondissement yëmbal nga xamante ni yëmbal nord ak yëmbal sud lay dajale nga xam ni dinañ am sous préfet boo xamante ni bu fa amee problème bu mu mënti doon dinañ ko ko mën a jébbal moom mu coordonné euh, action yi nga xamante ni yépp état bi yor na ko fa def beneen arrondissement bi day doon arrondissement wu Malika ñu boole Malika ak Kër Massar Nord mooy fii village traditionnel bi nekkoon ak yenn quartier yu ko wër beneen arrondissement bi day doon arrondissement Jaxaay nga xamante ni Jaxaay lay doon ak Kër Massar Sud Kër Massar Sud fi ay numaa di nekkoon Alaaji Paate Kamil Baas ak yeneen cité yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër ñoom ñooy nekk arrondissement wu euh, donc Jaxaay loolu mooy première décision bi nga xamante ni président de la république jël na ko deuxième décision bi mooy li nga xamante ni dañuy euh, xool ci yeneen département yi limite territoriale yi nan lañ koy fixé te loolu dafa am xarala yu bees euh, bu njëkk buñ daan indi ci diggante gox ak beneen ak moroomam seen di seen euh, limite bu ñuy wax ni dëkk bii fii la yem dëkk bii fii la tàmbalee bu njëkk ba ni ko daan mandarga dañuy wax ni boo demee ba ca guy gële wala nga dem ba ca kër gële wala nga dem ba ci tali bu xonq bële noonu lañ ko daan mandargale waaye léegi xam-xam dem na ba yegg ci directeur généralu ANAT mi ngi fii teew ci mbooloo mi xarala yu bees yi dem na ba yegg ci dafa am ay technique yu ñuy wax coordonnées x y léegi fi mu ne Dakar mën nañ la wax ni la coordonnéem en x y et en transverse universelle nii lay tëddee de Mercator nii lay tëddee nga xam ni référenceur spatial la boo xamante ni lépp lu xaajee ci hémisphère noor bi boo jëlee àdduna jël xaaj bi am na nu ñuy nattee poñ yi te ni ñu koy nattee dafay mën a tax bu ñu mandargalee benn gox wala benn dëkk wala benn quartier wala sax benn parcelle amul dara lu koy mën a dindi dina mën a sax néewal xëccoo yi am ci diggante askan wi léegi léeg dafay am ñoo xam ne dañuy diggoo tool wala dañuy diggoo dëkk mais dinañ wax ci léeg-léeg dinañ gis léeg-léeg ci doxalin dañuy dem ba euh, Sangalkam mën na ni Bambilor fii la yem Bambilor ni ko yemoo fii wala Pikine ni fii nga yem pikin ni ko yemoo fii Géejawaay ni ko lii ci man la bokk loolu nag li ko doon waral mooy niñ daan nattee fii dëkk yi yem moo ko daan waral loolu dafa euh, science dépassé na ko doxalinu àdduna dépassé na ko te su àdduna di dox da ngay fexe li nga xamante ni moom mooy gën a ñoŋal diggante nit ñi ci seen biir ñu wéyal ko ba tax na bi nga xamante ni limite territoriale yi war nañ ko fixé dañoo sukkandiku ci xam-xam yooyu ak xarala yu bees yi nga xamante ni même ci lien internet yi boo ci duggee parcelle sax soo ko amee boo amee coordonnées géographiques yi mën nga xam exactement fan mooy limitu coordonnées géographiques yi loolu yépp nag dañ ko tabbal ci réforme bi pour gën a yéwénal mais tamit gën a euh, euh, indi kaaraange ci li nga xamante ni moom mooy limite territoriale yi bu leelu weesoo tamit euh, bu ñu demee ci département Rufisque wax nañ ko léegi euh, am na ay arrondissement yoo xamante ni am na fa te amu foon arrondissement wu Bambilor moo fa nekkoon day jël day jëlaat turu arrondissement wu Sangalkam arrondissement wu euh, Diamniadio amul woon dañ ko créer commune yi nga xamante ni mooy nekk ci biir mooy Diamniadio Sébikotane ak yenn Rufisque Est nag arrondissement boobu moom du bouger boo demee Géejawaay benn arrondissement la Géejawaay gépp amoon nga xam ni préfet moo fa nekk mais amul sous-préfet mais pour gën a yéwénal mais tamit pour gën a fexe ba su nit yi amee problème ci seen gox yi wala état bi bëgg a jël benn décision wala bëgg doxal benn mbir ci gox fexe ba ci gox boobu lu mu gën a yamee ci euh, wala nu mu gën a yamee ak nu mu gën a mën a yéwénee ci niñ ko war a mën a euh, saytoo ci ay problème am mën ci apporter ay solution ci ni mu gën a gaawee il faut que nga am ay taille superficie yoo xamante ni du ay du doon ay taille yoo xamante ni da ngay réer ci biir parce que benn département am nekk benn arrondissement nga am benn département mu am ñaari arrondissement arrondissement bu nekk mu am sous préfet bu nekk ci bopp bi nga xamante ni lu kenn nit doon lijjanti ci lu yaatu léegi ñaari nit ñoo koy lijjanti te loolu du lenn lu dul euh, bëgg am solution yu gën a gaaw ba tax na département de Guédiawaye léegi ñaari arrondissement la arrondissement Sam Notaire ak arrondissement Wakhinane Nimzat boo jëlee arrondissement Sam Notaire li fa nekk mooy Golf Sud commune Golf Sud ak commune Sam Notaire nga dem Wakhinane Nimzat da nga fay fekk Njaareem Limaamulaay Médina Gounass ak Wakhinane Nimzat loolu mooy li nga xamante ni mooy beneen décision bi Euh, alors euh, bi nga xamante ni tamit euh, xool nañ ci wàllu waxoon naa ko léegi dama ciy dellusiwaat ah, département de Rufisque arrondissement Diamniadio am na fa mais arrondissement wu Sangalkam boobu tamit dama bëgg a leeral ni am na ay village yu nekkoon ci wetu ginnaaw Sangalkam parce que da ngay traverser Sangalkam da ngay mën nga jógee Bambilor traverser Sangalkam yëgaat ci yeneen village yooyu yooyu tamit dañ ko réorganisé waat même dans le cadre des communes xam naa sama collègue bi dina si ñëwaat léegi monsieur le ministre Omar Gueye en charge de collectivités territoriales pour euh, ñëwaat si point yi nga xamante ni war nañ ko préciser ci cadre boobu dernier décret bi mooy décret bi nga xamante ni dafay fixer chef lieu de région yi département yi ak arrondissement yi en même temps que muy fixer limites territoriales yi mais en même temps dañ koy toujours sukkandi ci li nga xamante ne mooy xaralu bu bees boobu ma waxoon léegi muy euh, coordonnées x y en transverse euh, donc universel Mercator mais li nga xamante ni ci tënk mën nañ ko jàpp mooy découpage administratif du loo xamante ni lu yees la ci Sénégal Sénégal ci njëlbeen amul woon quatorze régions jóge na ci sept régions dem ci huit régions dem ci onze régions ba yegg si si quatorze régions alors département yi tamit tollul woon nii mu toll ci quarante cinq dañu dafa dox ba yegg si fii mais saa yu ñu demee ba àdduna dab ñu ci doxalin population gën a yokk euh, dynamisme économique maanaam doxalinu koom-koom ñu gën ko ràññee ci yenn gox yi toog nag seetlu da ciy jot te bu boobaa day am ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëmale ci loolu ñu laaj leen ñu xalaat ci buñ ci xalaatee ba noppi nag ñëw jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a porter proposition yóbbu ko ci monsieur le président de la république mu dogal mais du lenn loo xamante ni mooy sabab bi wala mooy solo si lu dul gën a yéwénal découpage administratif moom benn objectif la am mooy yéwénal dundalin askan wi ngir fa ñuy jëlee décision yi ak fañ koy coordonné gën a jege ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa dëkk lii daal moo doon ci tënk li ñu bëggoon li ma bëggoon présenter ci point yi nga xamante ni moo ci euh, génn ci ñetti décret yooyu nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall jëloon na ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu génn maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam